yéenay occuper le premier wagon du train Dakar bu bees maa ngi leen di nuyu di nuyu madame le ministre Ndeye Thiam ma koy wax di ko elle est une chance pour euh, Sicap Liberté cette chance là waa Sicap di saisir c'est une opportunité que vous n'allez pas rater et à coup sûr si compétition des territoires bi ñu jëm Zahra Iyane Thiam day nekk pour Sicap et pour Dakar madame la ministre maa ngi lay féliciter de rafetlu sa liste c'est la seule liste bu aligner deux dames Maguette Lo maa ngi de la encourager Chérif da nga couleur suñu coalition Chérif Mamine da nga crédibiliser suñu coalition Chérif Mamine da nga dugg ci coalition bi parce que xam nga ne mooy coalition bi ëmb intérêt Sénégal parce que képp ku la xam ci réew bi xam ne ci intérêt Sénégal da ngay dox ñu lay remercier bu baax may nuyu Dakar bu bees Dakar bu bees lan lay indil ah, Dakar bu bees sàgginul ne bi fi newoon du Dakar bi fi newoon Dakar la mais dafa am ñoo xamee en dañoo ñëw ne ñu jox leen Dakar dañ koy taxawu ah yéen li gis Zahra Iyane Thiam démontré ko léegi. plus de six cent milliards budget cumulé boobu ba léegi mënuñ si taxawal dara lu askan bi teg seen loxo gis ko ñooñu taxawuñu Dakar dañoo tardel Dakar bon dëkk waa tardel Dakar moo tax ñun ñu ne Dakar bu bees Dakar bu bees lan la indi Saliou wax na ko léegi pencoo la indi lu ñuy wax gouvernance bu bees inclusivité yéen waa Sicap waa Yoff waa Cambérène waa Gorée waa Plateau partout dans Dakar bu ñu bëggee defar budget dox ci seeni soxla dañ leen di dajale d'abord laaj leen lan mooy seen soxla ñu taxaw ci seeni soxla par le biais d'une conférence territoriale loolu mooy une gouvernance inclusive dans Dakar bu bees kenn proposé ko Dakar bu bay lan lay indi madame la ministre Aïssatou maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa taxawaay si comité scientifique ba nga bokk yow dugal nga si biir benn assistance aux personnes vulnérables parce que les personnes vulnérables dañoo am part bu mag si Dakar kenn mësu leen ko jox nga ne les personnes vulnérables incha allah dañ leen di jox seen wàll si Dakar moo tax suñu programme bi nga ko fekk Dakar ville protectrice des personnes vulnérables. xam nga lan mooy jox jigéen ñi ay financement mais financement yoo xamante ne kenn du leen rendi ak ay taux d'intérêt financement yoo xamante ne kenn du leen rendi ak usure financement yoo xam ne dañ koy mën a gàddu dañ ko fay te du jël seen bénéfice. ville de Dakar depuis dix am na fonds bu fa nekk pour jigéen ñi pour ndaw ñi pour artisan yi pour entrepreneur yi pour Dakar waay mais ñi ko yëg bariwul ñoom ñoo koy jël di ko jox seen ñooñ Dakar waay yëguñu ko ñu dëkk bu ñu ñëwee ak dakaar bu bees danañu teg un fonds boo xamante ne képp ku bëgg a liggéey ci Dakar muy jigéen muy xale muy artisan muy tailleur ak ku mën a doon boo ñëwee sa maire dana la gunge par un fond boo xamante ne day jëriñ les Dakarois les Dakarois te li leen si tegal day mel ni tegalu leen si dara. ñun si suñu programme Dakar bu bees def nañ fii le concept des quartiers sûrs un quartier sûr mooy xale yi jigéen ñi ak ASC yi ak délégués de quartier yi ñëpp ànd. force de défense et le sécurité jàppale leen ASP jàppale leen pour que ñu sécuriser quartier bi teg un numéro vert dédié aux alertes pour que à chaque fois que de besoin ñu mën a aar askan bi loolu sama collègue koo xamante ne ñun ñi nekk ak moom day xam nañ valeur am mooy madame la ministre Zahra dama wax léegi bi ma gisee muy yëngatu ma ne sama xel ah Yoff bu ñu moytuwul la capitale politique de Dakar va changer de de cas. J'ai l'impression que la SICAP Liberté va bientôt devenir la capitale politique de du département de Dakar alors que pendant beaucoup de temps dafa mel ni Yoff la woon. donc Zara waa Yoff nañu moytu parce que dafa mel ni affaire bi mi ngi déplacé ouvert Liberté mais c'est tout à l'honneur de SICAP Liberté parce que vous avez une très grande dame. Vous avez un leader exceptionnel. Vous avez un prochain maire qui va transformer, Inch'Allah, Sikab Liberté. Je vous remercie.